mbokki taalibe yi fi teew yëpp te dara yëkkatiwu leen lu may istajiibu lillaahi wa lirrasuuli izaa da'aakum limaa tuhyiihi mooy ñëw ngir wuyu si wàllu Sëriñ Tuubaa kon Serigne Ibou Serigne bi nee na ñu ngi sant di gërëm bu baax ci sa yitte ak sa aussi ak sa taxawaay ndax bu war bu ñu ko tuddee rek tuddee waa daayira

di nuyu Abdoul Fattah Gueye mi nga xam ne moo jiite daayira bi ak waa doon ñu si ne ñëpp ku mel ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Djili ak Serigne Mourtala Moussa Abdoul Fattah ak ñëpp doon tànn ci ci ginnaaw yëpp di jàmbaar boo xasee ko Serigne bi ba tudd ñëpp ndax mooy jëwriñ kon Serigne bi war ngaa sant yàlla baax ndax Serigne Touba ba tey jii Rasulullahi sallallahu alayhi wa ba suñ borom fay ko lépp lépp lu mu yéene ci dëkkam bu tedd bi itam suñu borom jox ko kon nag tawfeex bi mooy ku yàlla borom ko kon nag ku am tawfeex yi mu jaar ci yow yàlla bu baax te it ko sori am sa yi jëkk ko loolu moo di ci am bi mii ne ci seen yittee ba posté ko taxawaay bi tax na ku ko xam ku ne da xam ne amul dara looy xool ci yitte ndax moom ba mu liggéey ba liggéey yitteem yëpp jëm Sëriñ Tuubaa tam day ci Sëriñ Tuubaa yem ci sëriñ bi soxlu leer lu sëriñ bi dugg ci mbirum adduna dugg ci mbirum politique dara yitteel ko mooy Sëriñ Tuubaa fekk mooy ci alxuraan ak xasida ak topp total bi Sëriñ Tuubaa jëwriñ bi mel noonu nag ku yàlla def taw feex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom bi wóor na ma ne waxuma ko nañ ci seere ko ndax nañ demee ndax mënu ma ko seere waaye nag dama koy seere ci doon taalibu Sëriñ Tuubaa ku topp ci ginnaaw ci Sëriñ Tuubaa képp lañ jëm bu la jëmale bu la jëmale ci ñant yi sax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne dee leen moo yor te jaar ca ngir ma ndax kuy féetal ku nekk fu fii waaye ne xeesa siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul fatanaffalakum an sabiilihi kon moom nii ñu ngi koy ñaanal bu baax liñ moom ci yitteem ak taxawal ko si moom. yàlla na ko Serigne Touba dundee ba mu jëm te mboolem ñu bokkal Serigne Touba kat ñi ko a yéene ndax bu ngeen déggee Cheikh Maodo Moutakha mi fi nekkee Serigne Touba laata boo ak Cheikh Serigne Moussa moo fi nekk dégg ngeen kaddu ñoom yëkkati woon wax leen ko. loolu ñu ngi koy te ñëpp a ngi wax na ma ne sëriñ Sidi Cheikh Abdoulaye Mbacke nee na ko bu ma la séenoo nga tàbbi ci kàmb maa leen sow loolu seere mënu ko def taw sëriñ Dame Atta dégg ngeen jëf ji fi sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou li mu ne mooy gis mu def ko mu yëkkati kàddu soññi tànn bi wax ci xalaat loolu te mboolem jëfandu suñu tubaab yëpp nag. muy sëriñ si am suñu soxla sëriñ amoon sëriñ amoon ni kilifaam bañ na ko ba bu ma sant fi réew mooy soññi tari bi ci liggéey ñëpp kon amu ko des ndax boo limee da ngay yóbbu waaye njëwaru Sëriñ Tuubaa gépp te njëwaru Sëriñ ko waxee mooy képp koo xam ne ci sëriñ bi wala nga yaakaar Sëriñ Tuubaa kon kenn génn ci kon daal Tuubaa ci kanam ñëpp xam nañ ne dafa wuy si rek di Sëriñ Tuubaa bëggoon ci yoon bi te yow nag tàmm leen ko di doxee dafa ñëw ngir jëmmal ko ndax Serigne ba mu nekkee ci njëriñ ba mu wootee ca ñaar fukki ñaar fukki dërëm ak juróom boo xool wax ju am solo jam wax day gudd ndax jotaay bi nit ñi dañoo sonn waaye lan ca waxoon mooy lii lépp lu ngeen sombati ci lépp loo xam ne lu ngeen soxla la rawat na lu jëm ci néegu yàlla wala lu dem na ngeen ci góorgóorlu ci seen kem kattan def ca la ngeen man ak li ngeen mën ku ci seen kattan yem ngeen dem laxasaay wuti ko ci anam bu sell te ku seen kattan yem ngeen toog xaar fa say jaam ak baaxam say bisam te rikk waaye maa ngi leen waxtali ko lépp ndimbal loo xam ne bu fajale seen aju itam daañu leen xañ seen ngor xañ seen xañ leen seen jiw daa koy firi lu gudd rek moo ko waxee bi tax waaye kon lii ngeen la sëriñ waxoon ne ku la mën a sañal la yéen giseenu sëriñ Tuubaa njàngale boobu da ngeen di dégg na ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 di ngeen sosé daayira waxoon naa leen ne seen daayira bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag mooy yéen ñi ko jiite dañ leen xam bu baax a baax kenn xamu leen ci loolu liggéey sëriñ Tuubaa kenn xamu leen ci lu dëgg li yàq ab daayira rek ñaar rek la boo laale ko waxoon mooy xëccoo dara ji ak ñett ak ci mbiru ko ndax mbiru Sëriñ Tuubaa ba léegi ni nag yàlla dim ne li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu tamit tam léegi Sëriñ Sëriñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen jigi itam nag moo tax xolu tali yëpp nangu ko te Sëriñ Saliou Mbacké daal wax fa xolub taalibe yi jëmee dafa la xolub Sëriñ Tuubaa bi natt naa ba gis ne Tuubaa ci kanam taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi dëgg yëpp kooku ci tudd cofee nag yëg-yëg ba mu ci am doo ko wàññi kon nag na ngeen ak yaqin ci ne seen liggéey bi Sëriñ Tuubaa noonu la kon yàlla yàlla ba li ngeen bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi lépp mooy jeex ko ba ko seen yoon ba ca des Cheikh Issa Diène dafa ne aw na murid yi dañoo mel ne wagoo saxaar bu bopp ba doxee rek ci ginnaaw yëpp dox. kon nag yàlla dimbali leen am jiit du dox. sëriñ Abdou Lahad Mbacké daa wax ne am na ci ñoo xam ne dañuy dox doxal gaynde am na ci ñuy doxee bu bukki damaa seet lañ ca mën a jël rek ma ne gaynde bu toppee ci ginnaaw bu yàggee aw doxee na jeex kon nag ku jug ba topp ci ginnaaw ko xam ne day wax. dëgg la yéen nag yàlla defal na doo fi kon ngeen xam ne yor bi mosuñu bu ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tubaab ñoo ko santaane